ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaaniirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci eh, fukkeelu jotaay ak ñaar ci téeréb xalim leer noo ngi tolloon ci leeral xeetu mbindi eh, sëriñ bi ci ñetti xaaj yi mooy bind yi mu bind lu jiitu muy dem ci géej gi ak bind yi nga xam ne da ko bind ci eh, jamono jooju ba ni mu dellusee ba si gànnaar ak bind yi nga xam ne da ko bind bi mu ñëwee gànnaar ba ni ñu ko eh, mujjee gis waxoon nañ nag ñaari xaaj yu njëkk yi kon xaaj bu mujj bi ci lañ nekk eh, mu ne ñu xaaj bu mujj bi mooy li li mu bind mu tàmbalee mille trois cent vingt-deux ba ni ñu ko noppee gis dégg nga moom li mu ci wax ci xaaj boobu nee na kawe na lu alxuraan ak xadis ci lu wóor barke bu mag mi ngi ci boo xam ne nekkul ci yeneen taalif yi. ba sëriñ bi wax na ne li ko tàmbalee ci atum 1324 ba keroog may bi ajana sama mbind mi ngi jëm ci yàlla ak ci yonante bi ak ci waa lislaam gépp amul fitna amul lor. minni lillahi wa li rasuli wa li islaami wal qabuli. min daksashin ila duxulil janna xatti xati adan wa xayri fitna xaaj bu mujj bi nag bu nu seetloo xasida yu baree bari la ci sëriñ bi bind tey li ci yéeme mooy xasida yi gën a gàtt ci la ko def te muy xasida yu rëy te bari nga neel mooy yi mu defee gànnaar ba ni mu ñëwee Ceyeen Jolof ba ni mu ñëwee Njaareem jamono jooju nag eh, ñi nga xam ne moo jëm ci xaaj bu mujj bi jamono jooju dafa fekk sëriñ bi ne ci beneen tolluwaay diggam ak boroomam tolluwaay boobu day mel ni rek ko liggéey ba noppi di jël ak paayam sunu borom di ko fay muy sant ci pay gi ko sunu sunu borom di fay moo tax xasida yi mu bind ci jamono jooju li ci ëpp xasida yi cant la ndax gànnaar ci la. ko sunu borom tàmbalee fay maanaam liggéey ba ñu doon liggéey ci géej gi pay gi sunu borom gànnaar la ko tàmbalee fay ndax moom sëriñ bi daa wax ne ku njortu ne sama tukkib gànnaar ak sama tukkib géej gi ñooyam kooku réer na lool te yeewuwul tukkib gànnaar gi sunu borom da ci doon tayal da ci doon neexal sama dund du du lenn lu dul dem joti pay yàlla gi nga xam ne nii moom la ma diwoon kon loolu mooy li nga xam ne moo ko eh, eh, yëkkati woon mel ne loolu ko yóbbu gànnaar ci lay wax ne man sànn sayri riba am ak sasin misla masiri rasa ami jay sasin sabata kawnuhu jahulan xumra bal huwa tatibul ali lil ali lil umra lam yaku sayru ak sasin si waa jasa man li xaada baxdu baxdu waxdan na jasa kon loolu moo jëm ci Eh, mbind yu mujj yi nga xam ne kon lu ci ëpp ay eh, cant moo ci nekk dinañu joxe ay misaal nag ci bind yu njëkk yi bind yi ci digg bi ak yu mujj bind yu njëkk yi misaal mi ñu ci joxe lu mel ne xasid ak sindiidi tofatu mutadarriin matlabu stifaayi taxmis atawbatu naso raiya matlabu fawsayni xattaaba inni inni inni aqulu Euh, misaal yi ñu joxe ci xasida yi euh, ci mbindi ñaareel yi nga xam ne moo ne ci digg bi jaalibatu maraqi warum naa sukkur la si yaa xayar dayfin yaa zal busaraati wala yooyu yëpp ci géej gi la ko bindee day mel ne nag euh, yeesalaat na leen am na am na ci yoo xam ne yooyu mu bind ci géej gi am na ci yoo xam ne bi mu ñëwee gànnaar da koo yeesalaat joxe ndigal ci ñu ko jàng ñu ko jàng loolu junjoon nañu ko ca ginnaaw ndax am na bataaxal bu sëriñ bi da waxee ne maa ngi leen di xamal ne daa am lu tuuti lu ma yéwénal ci seeni njariñ bala maa dellu moo waral ma jël mbind yi nekkoon ci yéen te doon bind yu ma binde woon ci géej gi li niru na bataaxal bi daa niru lool wax ju jëmoon ci maam Cerno day mel ne it gànnaar la nekk ba muy bindi bataaxal bii ndax nee na ndax nee nañu Eh, bi mu nekkee gànnaar moom sëriñ bi dafa yónnee woon Sénégal ñu indil ko gaal yi nga xam na ni dafa defoon ay xasida te mu bindee woon ko ci géej gi ñu indil ko ko mu am ci yoo xam ne da jël di ko bindaat waaw ah, yooyu nag yu bari la yoo xam ne yeesalaat na leen foofa ca gànnaar door koo delloo taalibe yi eh, xëy na kon bataaxal bi lu mel noo ko lu mel noonu ko taxaw taxoon a jóg wallaahu alam xasida yi nga xam ne nag moom la sëriñ bi bindee ci géej gi. yu néew lañu ci jot euh, li tax la liy firndeel loolu mooy tukkib géej gi daa yàgg lool te fi mu nekkoon dina fa am waxtu yu gën a yaatu ngir bind ndax boobu gisul dongo yu muy tarbiya mbaa ñu muy jàngal wala nit ñu muy waar gisul mbokk gisul njaboot donte sax moom sëriñ bi loolu lépp euh, dara mos ko ci yàqal dara mos ko ci tënk waaye diir boobu moom boo xalaatee sëriñ Tuuba ak ko farloom ak wéetaay bi newoon di nga xam ne bind na ca lu bari boo xaal xalaatee loolu nag ak liñ jot jot te muy bind ci géej mbindum géej gi da nga xaw xam ne kon xasiida yi géej gi di ci génn bariwut euh, ñu joxe ay misaal nag ci xasiida xaaj bu mujj bi nga xam ne moom la ñuy wax muy xasiida yi nga xam ne di ci ëpp ay xasiida cant la euh, tam mbind yi tàmbalee gànnaar ba ni ñu noppee sëriñ bi wakaana xaqan ci la bokk mën na lu baaxil xadim ñaar yooyu yëpp gànnaar la ko bindee nuuru daaray ni eh, njaareem la ko bindee taysirul ansir ñenn ñi nee nañ ceyeen jolof la waaye li gën a wér mooy njaareem mafatihul bisir moom it nee nañ ceyeen la mafatihul jinaan moom it am na ñu ne ceyeen la ñenn ñi ne njaareem ek fi ni njaareem la ko bindee jaawatu eh, njaareem la ko bindee kon loolu yëpp ci xaaj bu mujj bi di jëm xaside jëm ci xaside cant ci la bokk ñu leeral na nag xasida yi sëñ Tuubaa yi deesu leen gënalante ndax lépp liggéey bu yàlla nangu la bu ci nit jàpp te sellal sellal njàng ma na ci taseeg li ku tedd ki digg ci xasida yi am na ci nag yu féete kaw waaye loolu moom diggante sëriñ bi ak boromam lay doon du doon sunu mbir ndax sëriñ bi moom day wax ne xasida gii sunu borom xamal na ma ne moo féete kaw xasida ga ko jiit wala yu mel noonu loolu dana faral di am ci ay mbindam bu dee li jëm ci ñun moom dañuy jàpp ne liggéeyu bi lépp nangu ndax nee na sunu borom faral nga ma lépp lu newoon ci man ci balaa yow mi nga xam ne nangul nga ma nangu nga mboolem samay liggéey nangu nga mboolem sama liggéey ma xawtama alaya marra min bala yaa man jamia xidami taxabala xasida sëñ Tuubaa yi nag e, yi nga xam ne moom la làmboo ci e, tu xeetu tudd yàlla xeetu ñaan xeetu jéggalu xeetu julli ci yonante bi e, xeetu tagg yonante bi ak siiraak yu mel noonu loolu rek moo ci nekk ak luy jariñ nit ñi euh, bu ñu dellusiwaatee nag dugg ci thème yooyu maanaam xasida jëm ci wàllu tudd yàlla yu jëm yu jëm ci wàllu cant wala yu jëm ci wàllu tuubag ñoom seen danañ ko tegale incha allah indi ko ni mu dikkee ci téere bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.